ka Muhammadin Cheikh Mouhamadou Mamoun moom yàlla def ma toog ci jataayam sëriñ Modou Mamoun ñu koy ñaanal seen borom yàggal ko fi te wéral ko te liggéey bu sumb di ko liggéeyal loolu itam mu te ndam moom àggale ko fa dana kawe jot loolu bi leen yëpp di leen baal àq ñun ndokkal euh, mboolem umma islamiya ci bis bu tedd bii dina am suñu borom mu boole ñu noonu mboolem dina doon dundale weer sol ramadan ñu bàyyi ko ci woor ak ci nawafil yi ak ci ñaan yi ak ci mboolem jëf yi yu nga xam ne ñu ngi ko jëloon def te mu may ñu yàgg koo fekke te yàgg koo taxawee barkeb sëriñ bi ñu ngi soññ suñu bopp ci ndigal sëriñ bi di suñu soññ bopp yépp ci ñu farlu ci yàlla suñu borom te topp ko ci bu ñu wéetee ci bu ñu wéttalikoo te fépp fu mu nekk mu koy teewal ci suñu kanam te di ko seeral li nga xam ne moom la ñuy jëf ndax kat moom rek moo amee ay damay fay bu ëllëgee noonu ko jàpp bu baax a baax te ba muy dell nii ko sëriñ bi waa daan dénkaane sëriñ bi daal wax ne na nga jàpp sa borom ndax moom kat boo ko jàppee dana la jàpp boo ko jàppul dana la jàpp kon noonu ko jàpp bala la jàpp moom kenn mënu ko rëcc wa kullu mu'aatiihi yawmal qiyaamati fardan sëriñ bi daa wax ne adduna na nga ko bala laa bàyyi ndax moom ko jàpp dal la ba ko bàyyi dal la ba kon yow bagoo bala laa ba sëriñ bi daara ji tamit bàmmeel na nga ci def bala ñu la caa def ndax boo defee def danañ la ca def boo tuuru def danañ la ca def kon na nga ci def bala ñu la ca laa def ndax kon caxas def kon loo jëf doon dootoo ko mën a def mm-hmm. te la nga fa mu jiitu ko mooy mooy defar sa dëkk mu daa ko firndeel rek wa arhabul asyaai lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw sawayaatan faqat li amalu saalihatan tanfaahum in qafalu sëriñ bi ne ñi nga xam ne dañoo gëdd ak koo ci ne moom bëgg bëgg dëkkal ko laaj ko loo gën a bëgg fi nga toll ñoom lay wax mooy ñu delloo mën a dund loolu instant su gàtt laa koy def ndax moom fa rek jaamu yàlla def fa lu baax loo xam ne boo décision mënu fee tey kon yow mu dégg loolu te demoo yaa ngi ko wax pour jëf kon kenn sànq waxtam nañ ko feesal ci jaamu yàlla ak def lu baax loolu sëriñ baa ngi koy fàttali bu kon ñu xam ne ak taalibe bi yaakaar Sëriñ Tuubaa warut a bàyyi di ko warut a yàcc danga war doon jàmbaar ci jaamu yàlla ak ci liggéey ndax loolu moo koy may fii ci àdduna mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo am njëriñ bindee fi te bu jógee fii bu demee foofee mu bokk ci ñeneen dimbalee loolu foofu moom moo ko xool moom moo ko jéemal ak yoon yàlla ñu ci yàlla boole. amiin ci barkeb sëriñ bi bu loolu daan rek sëriñ bi ñu ngi fàttali képp koo xam ne suñu borom defal na la tawfeex ñu dëkk Daaru Salaam bu ko yàlla baax ak war ngaa xam fii nga nekk mooy fan war ngaa bàyyi xel yaa ngi dëkk ak Cheikh Seydou Mokhtar ñu nekk Sowét. yaa ngi dëkk ak seen bopp du noonu yaa ngi dëkk ak ay góor yàlla yu mag a mag yoo xam ne gis naa ne yéen a ngi lool yaa ngi dëkk ci pàcc bu Sëriñ Tuubaa bëgg defoon ko ba wax ne moom Tuubaa ñoo ko gën a ful ñoom ci pàcc yi ñoo ko sàncee nee moom ko ak xasida wax ñaan te boromam ñu bëgg ci dëkk bokk ñen bokk na ca lan ko ci ñaan wax ko ne ko wal tajcalanha maskan al imaani wa maskan al islaami wal ixsaani wa ammalna bittuqaa wal nuuri wa zuhdi wal waraa fi dunya ñaan na suñu borom defal ko pàkk bii daal salaam bi dëkk imaan ak islaam ak ixsaan loo xam ne day dund ci ragal yàlla dëkk la dund ak sàmm kon dëkk bi loolu rek la moom loolu rek la yow yàlla baaxee na nag foofu yéen a ko war ngaa xam ne fii nga nekk fu ñu warmal la fu ñu màggal la fu ñu màggal la noonu lañ ci war a nekk noonu lañ ko war a dundal sëñ Abo Mouhamad Daaru Salaam xalifa Cheikh Mahamadou Maamoun ñëw na jiite julli gi nga xam ni mooy julli Daaru Salaam taxaw ànd ak imaam si Cheikh Abdoum si Hamdi mu Cheikh Mouhamadou Mamoun imam ak mboolem kilifay Darou Salaam njaboot si Mamoun gi yëpp macha allah ak mboolem dëkkandoo yi ak mbokk yi ak leen gi cheikh yi macha si njëga si la ak mboolem ñi nga xam ne dañ ñoo baaxoo di julli Darou Salaam bu pàkk boo xam ni pàkk bu Sëñ Tuubaa bi mu njëkk a sànc ni ko Sëñ Cheikh waxee ci xutba bi Sëñ Tuubaa njëkk koo sànc ne moog Tuubaa moo ne gën a moo gën a ci mboolem pàkk yi Darou Salaam ak Tuubaa moo gën a ci mboolem pàkk yi ndax ni nga ko sàncee moo waral kon day mel boo ndeysaan neuf heures demi rek fekk na mu taxaw julli julli gi ànd koog ñu mu àndal ñëpp macha allah soññe soññe am solo delloo nit ñi ci yàlla delloo nit ñi jàpp Sëñ Tuubaa mi nga xam ni bu ñuy jàmm yàlla gannaaw yàlla ci moom moo tax ndax moo tax islam yaatu maroo ñu xam islam moo tax ñu gën a xam alxuraan maroo ñu xam ak mbaax gën a ngoy Sëñ gën a warmaal dëkk bi muy Daaru Salaam wax na ko ci ay xutbaam waaye gën a fàttali baax armée li nga xam ne am na yokk bi sëñ boo wax na ni nañ koy defee ni waa Baqiya defee Touba Sëñ Touba Sëñ Sëñ boo léppam da koo méngale ci Touba muy lu am solo imaamam mooy Touba jumaa gi da koo taf ci Touba même ku gis jumaa yi bi mu toogee léegi sax yi fi am yëpp daxa naa moog jumaa yi Touba benn la ni Makka ak Madina nekke benn noonu la boolee Touba Darou Salaam mu nekk benn te loolu maa ma ko njëkk a wax Sëñ Touba ko njëkk ñaan ñaan Darou Salaam ak Touba ñu nekk benn lakka Darou Salaam rabbi wa Touba lii ko fii dooni kon day mel ni moo waral mu ni daa bëgg nag yokk bi taalibe yi bàyyi xel ni nañ fay dencee daa war a mel ne daan ni ñuy dencee jamono jii Touba am lu ñuy wax yokk ci Darou Salaam ni ñuy dencee Baqiya ni ñuy dencee Darou Salaam kon daal day mel ni ba si boo xoolee sax mbooleem Darou Salaam lépp rek da koo delloo cosaan la na ko maam de defoon ñu nekk benn ñu nekk ay cheikh wara bokk mbubb wara bokk lépp moo lépp Darou Salaam activité yëpp da wii wiide ci boo xoolee jëmmi Touba al Mahrousa ba ci bayaani bi mu toogee xool bayaani ni Touba bayaani la ñuy bayaanee avant noddu après noddu yëmu ci kasaalekat maanaam baqiya ni ñuy dencee ci armée lu bees yooyu muy dara ci yokk bi ñuy wax armée lu bees yeet noonu la ñu ciy dencee kon demee daal suñu boo daal si gàttal xam ne bëgg mi maamam xam na li si xam na la yàlla bëgg xam na yonte bëgg ci la nekk dañu naan yàlla gën ko yàggal gën ko wéral ba li mu a liggéey lu ñu mas a liggéey suñu wut maamam si ñu jiitu mu liggéey loo xam dana kawe lool ba liggéey ay naali boppam te loolu ñëpp a ngi koy ñaan te ñëpp ko yéene yal na yàlla defal ko ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu julli Korite fii ci Daaru Salaam macha allah ànd Salaam TV